pare foofu jéggal ko suñu bàkkaar ñu tay ba def ko tay ak ñu tay noonu nga def ñu ko tay yàlla ko yàlla jéggal moom mii borom démb ak tay yàlla ne bu leen fi jéem a jaay neex di jéem a jaay aaral nekk paa di garaaw garaaw yàlla nee na bi nga nekkee booy ci sama kanam ah lépp ci sama kanam la xewe delluxew wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa bu kenn yaakaar ni yow bu kenn yaakaar ni mën nga bu kenn yaakaar ni xam nga yàlla ne huwa moom yàlla kese a'lam mooy aji xam gis nga afaala bu ko yàlla tëggee boo gàttee xam-xam da nga yaakaar ni yàlla day defante déedéet afaala moom rek mooy aji xam bi ma ne tax moo xam ci ko ragal bi mu tëddee biir bi mu nekk ci biti ويلا ما تبين ما إيه خمسة يقول حادي مالي مبرك خالي وخالي مالي مبرك مبرك كسر دويل باي أعوذ بذات الله لذاتي من ذات الشيطان الرجيم وبصفات الله لصفاتي من صفات الشيطان الرجيم وبأفعال الله لأفعالي من أفعال الشيطان الرجيم وبأقوال الله لأقوالي من أقوال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحمدا لمن كان بلا مكون فكون الكون بكلمة كن وقال كن فيكون والحق الذي تنبه عن الحق إذ لا يعترق الحق وهو الحق الذي أرسل رسول الحق بالحق للحق فكان حقا عن حق لحق بحق فحقق الحقائق حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أس الوسائل ينبوء الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم اعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ وأما أبو العباس أحمد التجاني فهو الشيخ الكل ورضي الله تعالى عن حامل لواء طريقته المشار إليه بالبنان في العرفان في السودان والبيضان سباق الغايات وصاحب الآيات والكرامات من لا يجارى ولا يمارى ولا يباهى ولا يضاهى ولا يلحق مبار له بغبار ولا ممار له في مضمار Rome qui, de par sa pilule et son encre, a réussi à combattre l'ignorance et l'exploitation de l'homme par l'homme, sacré père de Allah du Mansour, si c'est le Hajjman Ibn Osman. ورضي الله تعالى عن جميع أبنائه وبناتي اقتصارا نقول لكم السلام والرحمة والبركات والمنة واللطف من الرحمن الوهاب المنان عليكم مقي يوغلين دي نيو كما نتي كابي غات لي لو لاخ دنج ما ديغ لوما مون ما سانت لوما مونوت تا ñàkk koo mën ci xam ngeen mooy lan waxtaane Cheikhul Xaaji Maalik góor ga leer nañ mu ñuul kukk gis nga loo leer leer leer boo ko indee ci leeru Alaaji Maalik sax leer la ndax leeru Alaaji Maalik gën a leer boobu leer bëggal sa sëriñ bu la neexee كلام الشيخ الحاج مالك سجد آدني أنا أقول صوم إن جالسوا تراهم مطلقين له من المغربة بح بح ابن عصمان مونيكي لا جيس ناتكو با فوب ني مانغا كو ناتالي مولا مام هادي ني غور بوغي ني انا شيو نيك تالي مولا دغول ندير ان جالسوا bu ñu toogaandoog Cheikhul Xaadi Maalik taraahum li nga leen gis ñoom ñoom ñi mutliqiina ñuy woy sonaat baatu arab baatu olof la sonaat mooy ñu sëgg bu ñu ñemee siggi lu tax mu ne ñu nan ma xëbati ndax dañoo am rus personnalité Cheikhul Xaadi Maalik moo tax ñooñu kenn ñemewul a jàkkaarloo utiliser ifa baxin baxin kalimatu taajubi lil madax faqula uffin kalimatu taajubi lil dammi bax bax fa baxin baxin ibni Ousmane di nuyu sëriñ Habib si muy Cheikhul Xaaji Malik waaye comportement wam ci doxalinam biir ci waawoon nanguwul ni moom Cheikhul Xaaji Malik la ودمي تي كفاية تي إفحام المنكر الداني الكفاية الغالبين سيد الحاج مالك نعم لخير جي جابون جي دولارا يقال أن لا ني ديوي سما باي نغو وصلنا لتو يالا ديوي سما باي رك نتاي ام موتاخ كير شيخ الحاج مالك بو نيوي دا ngay xamni كير يالا da wax naa ba tàyyi yéen ne boo demee ci biir fekk ka ko santaane na mu war a bokk ca jëf-jëf jëf-jëf bariwul solo wax naa dëgg de def leen ma ñëw ay na xam ci biir ne xale naan ay dóor ay dóor a ngi ci def leen ma ñëw dama di dóor kii simplique donne le bon exemple moo tax Cheikhouna Tidiane yi léppam ñëppay di defandoo di waxandoo di ñaanandoo feneen foo dem nag def leen lu ñoo fa def li may wax nag du metti ku ci am la jaaxal rek duggal nga dem seeti ba xam li nga gis lu lu ju yóbbu li ma wax nga xam ne Souleymane waxul dëgg dalu ma ci kenn de sama jabar dafa dafa ku ne sañ na ko wax waaye bu jabar nga xam sa wax li nga ko diñ dëgg ah maam Maodo benn yitte la amoon xam ngeen lan la mooy ba ñëpp àndandoo jaamu yàlla maytu jaamante jaamonte dangereux jaamonte Cheikhul Hadji Malick demee ba gis ni taalibe bii egg na ci moom ci yéem ko moom Maodo ba bëgg koo teg place bu mu nekkul moom Cheikhul Xaadi Maalik dana fexe ba taalibe boobu dootu ko gisatu lu bëri ñaar mooy bokkuñu kay fay publicité pour gis ko kii làpp ah Cheikhul Xaadi Maalik da doon làppal neewul kenn kaay man la déedéet افهمني ني ورا من على نهج القوي من توب سيدنا محمد دون امر تجاني با نيب نيكو مورا يا واخ بنين ديجي مورا ووتي تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا نجو ان نمبر جيم فان يا مودي يا الله مودي بو نيجي دي ووتو كشير الحاجمان رك خولم فجوخن بدم يقول لي ما خبر مو انت رونك انا فيت جم دغارو دوكو تي بياج مو وان لا تابلو لا تابلو بي جم دغارو دا فوتو تي تابلو يو ديس وان دغارو حسن عثمان دينت اسم المشايخ كلهم كذلك سيري سيب اي فراش لاني boo xam ni bi ko xamagul da nga da nga daan julli ci waxtu ñemewoo wala fecc ci biir néeg bay fecc ci biir pénc nga dem xam sëñ bi di jëfandikoo loolu alaaji Malick ne kooku du sa sëriñ sa charla taala sa xërëm la wa kullu shaagirin an il kabiri fa dalika taahutu zul gurur na li ngeen di dafa baax sax waaye seeni baax a baax xoolal wa kullu shaagilin anil kabiir dama ku ñàkk sens ki toog ba mois de juin muy wutu sëñ ba juin de sëñ ba fekk sëñ ba rab ay juin ki toog ba mois de juin juin muy wëri sëriñ ba joindre sëriñ ba fekk sëriñ ba téye ay joint kooku yaakaaram des na ah الشيخ من ينقلك عن وعد الحدوث إلى أعلى مراتب العبادة كلا يفك جبتي لغل جبير بغمان ينك